mbokk yi ci jotaay bi yépp maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi ak ziyaara bi suñu kilifa yi ci jotaay bi yépp waaye di jaarale nuyoo bi ci ki nga xam ne moo sabab jotaay bi di sëriñ Babacar Seck di ko nuyu di ko jot lii itam nuyoo waa Daarul gën a jóge yépp ànd ak sëriñ Abdul Quddus mi nga xam ne mooy doomi sëriñ Abbas may xalifa ba ñu di la ziar bu baax ci bis bi sëñ Babacar di la ci ndokkeel di la gën a santaat bu baax itam di la wax itam ni noo ngi am yaakaar ci ne la sëriñ Tuubaa doon ñaan wax ne wali qaada ahbaaban bihim udhiru nuska wax na yàlla jox na ko ay soppe yoo xam ne ci ñoom lay wane taarub jaamu yàlla bi nga xam ne moom lay moom lay dundal ak moom lay yeesal ak diina ji mu yeesal loolu ñoo ngi am yaakaar nga bokk ci ñooñee ndax liggéey bi ngay liggéey fii ak taxawaay bi nga fi amee te kilifa yi njëkk a wax seere ko loolu liggéey bu rëy la bu ràññiku day itam ñoo ngi ñaan yàlla nangu ko te dara bañ ko gàllankoor te dara bañ ko xajamal ginaaw loolu itam kàddu gi mën naa bañ a gudd bi liñ fi jot wax ci ay kàddu rek mas na cee jariñoo xale yi nga àndal di leen tërbiya ci yoonu Serigne Touba te di ko def ci anam goo xam ni ñëpp dañ lay ñime di jaare ci yow di bëgg Serigne bi loolu dara gënu koy liggéey Serigne Touba Serigne Touba dinaay wax ni nit du ko xam di ko bañ kuñ la dee dafa bañ Serigne Touba rek. jàppal ne daa xamul kuy Sëñ Tuubaa walla bokk mu gis kuy tuddoo sëriñ bi te mel melokaan woo xam ni wuute naag wa sëriñ ba mel mu jartu na lii mooy sëriñ ba te fekk loolu sëriñ bi Sëriñ Tuubaa jëmm la joo xam ni ñépp ko bëggoon ci jamonoom ku masaa taseeg moom rek da koy daal di nongul ngir ne de moom doon jëmm joo xam ne ñëpp la yéene jàmm moom doon njariñ loo xam ni daray lor nekku ca li mu wax ne daa nafin bi laa darari doon njariñu kese te doomu aadama bëgg na njariñam Sëriñ Tuubaa lañ gis jëmm joo xam ni bind na ay yoon wax ni moom toppul kenn dara ci kaw suuf lu ko waaye defit jéggal na la yemul ci loolu nee na li mu yéene ñi mu àndal di ay taalibeem loolu la yéene ña nga xam ne jotuñoo ñëw di ay taalibeem danaa wax murid yi sax ne leen da ngeen xam ni ñëpp ay murid lañ koo gis rek jàppal ne murid la ñenn ñee jot a ñëw jébbalu si ñenn ñi jotuñoo ñëw waaye jàpp leen ñëpp murid lañ loolu la daa wax kon foofu la nekkoon jot na itam ñu dellu ci am njàngaleem ak ay dénkaaneem ndax loolu buñ ca nekkee dun am benn jafe-jafe ci àdduna duñ ko am ci àllaxira